والقلم وما يسطرون سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله القائل inna lillahi ahliin qiila man hum yaa rasul allah qaala ahlu lqurani hum ahlullahi wa xaasatuh jaalana allahu minhum bokki jullit yi salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare ci bésu alquran bi di leen xamal ne bokk yi day ñoo ma bett rekk ne nga wax ci turu association islamique yi naam sax kenn lañ ci ñoom waaye gis naa fi ñoo xam ne ñoo ma gënoon a yey ci tu jël kàddu ci seen tur maa ngi leen di jéggalu niyaabatan anhum ñu wax ne ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne moo assuré ne alxuraan moo koy wattu noonu yàlla yi lu ne jéem nañ ko waaye waxtu wuñ gënee sonn gën a tële lii firnde la ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam it masa wax ne am yàlla am na ay gaayam ñépp bëgg cee bokk waaye mu xamle ne ahlul quraani waa alquran daal ñooy gaa yi yàlla ñooy xejjam ya téere bi it yàlla moo koy wattu waaye dafa am ñu muy terale ñu taxawu wattu ga ndax yàlla na am moo ko wàcce waaye du wàcc di bind du wàcc toog di jàngale dafa am ñum terale ñu war a wattu téere bi association islamique yi te mooy këri diine yi sosuñu dañoo sof sosuñu dañoo sof ndax kum doon ci ñoom dafa am ku la jàngal koo ko am ku ko jàngal te loolu lépp dellu ci mag ñi kon sosuñu dañoo sof nee nañ ñi ngi sant alxaaji Sëriñ Seck ci taxawaay bi ak mbooleem ñim àndal ci liggéey bi di ñaan yàlla jëf ji yàlla na ko yàlla nangu te luñ ci def yàlla na ko yàlla barkeel barkeel liggéeyam dafa fekk nag sëriñ bi comme ñoom taalubéy sëriñ Tuubaa lañu te taalubéy sëriñ Tuubaa yi boo demoon ñaseen taalubéy ñaseen ya wa taalubéy tijaan ya taalubéy cenaba ya wala kër yu mag yépp ñoo bokkoon benn mission bi waaye ñoom comme ci daara ji ñu nekk sëriñ bi fi mu tegoon jàng alxuraan ak jàngale ko ak bind ko taxoon na ku mas a bindab kaamil jox ko ko dana la defal loo xam ne ña bayi woon mënuñ koo am ca seen nawet ba ña demoon commerce mënuñ koo am ca seen yaxantu ga ña amoon bokk yu mën a dimbalante te déggoo sa mbokk yi mënuluñ la ko moo tax Musaa Ka waxoon walla woykat ba wax ne soo farewoo di ko bindal mu farewoo di la dundal soo koy bindal di ko bayal mu sàkk ñuy bay di la jox moo taxoon ñépp daw jàngi alxuraan soo farewoo di ko bindal mu farewoo di la dundal soo koy bindal di ko bayal mu sàkk ñuy bay di la jox moo tax waaye mu kenn du ko ñee su ko defee nag mu xamoon àdduna yi nag en projet de société ñi toll ci jàng ak liggéey ñu toll ci jàng mu ne nañ jàng daawtukal yawma bi ibrahima allim fatan yanfa'uhu tafhimu maam na la woo ne ko maa ngi lay xamal ne woo naa la digal la képp ko toll ci jàng bu ma gisati ñu def loo ko lenn lu dul jàng nawloo itam ñi doon jàngale alxuraan ak di ko bind ba fas wu mu baaxle wala lu mu baaxle ba ñëpp bëgg ko mu ne demal joxal ma ko Abdourahman mbaa mu ne demal joxal ma ko sëñ Mbàkke Buso moo tax bi ñu koy tagg dañ ne sëriñ bi yar na jox ko yor na jox ko jox nañ ko mu jox ko jël na doomam jox ko foofu la ni mën a mooy sëñ daam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa jërëjëf jërëjëf waaw sëñ Mbàkke si Fadilou Tall Euh, macha allah loolu lañ doon séntu si moom euh, muy jëmm ju baax macha allah di liggéey ci lislaam di def daawa di jiite fii ci Fann juma alhamdulilah loolu lañ doon séntu si moom. Euh, suñu daam Abdourahmane Lo moom wax itam ngeen xam ni moom mooy moom mooy parrain bi moom lañ dara jaale bis bi xam naa danañ si ñëw ci wàllu gu gën a yaatu Serigne Mbacke. Mhm. jërëjëf jërëjëf Serigne Mbacke Sourang jërëjëf Imam Fadilou Tall. moo doon wax ci kàddu association islamique yi waaye daa mel ni yóbbaale na kàddu donga yëpp ci wax ju rafet ji waaye itam ci dellu siwaat ci cosaanul mbind ak ni sëriñ bi fonke woon bindkat yi waaye fonke woon ñi nga xam ne ñooy nitu alxuraan yi defe naa loolu bu buñ ko doon indiwaat di ko méngaleeg jamono mooy li sëñ Mbàkke wax léegi defe naa ñoom bañ bindee kaamil yóbbu ko am na ñoo xam ne quinze mille lañ leen jox am vingt mille mu rëy lool tey nag ñi liñ bind eh, taxu ko yaatu lool waaye ñu digal leen maanaam ñu dig leen ci ah loo xamante ne nit liggéey na lu yàgg yàgg ko ca mbayam ma wala ca loolu moom mooy liggéey bi sax ndax xam inna tilaawatal kitaabi mulku wa huwa liman yabxi najaata fulku mm-hmm. alxuraan moom képp ku koy jàng yaa ngi si ak nguur te itam dugg nga si gaal goo xam ne kenn mënu laa tee eh, taxe mu mel ni sëñ Mbàkke loolu ñuy njëkkante waxtu bu baax a baax rek mm-hmm. eh, di sàkkuwaale ñaan nag bu baax si jëmm joo xam ne dara ànd a ñun jataay bi saa su ne muy Sëriñ Moussa saar maa ngi xool sëñ Ousmane ñu ngi koy jaale bu baax nekkoon nitu alxuraan yëngutu si alxuraan rek yëg nga ni yëg nga Moussa Sarr kon nag fu waaye nekk nga jagleel ko ak ñaan bu baax waaye sëriñ Alaaji Fall itam bu ko kenn fàtte ñaanu xaas nañ ko ko jagleel waaye suñu ay wóllëre ku ñu wax sëñ Cheikh Diba soxna Fatou sekk ñu ay ndaw yoo xam ni suñu boroom jël na leen ci lu yàggul dara fu waaye nekk rek nga jagleel leen ay ñaan ndax bis bu tedd lañu nekk anta bi ni'mati rabbika bi majnun